hôpital ca diwaanu Touba def na fa ab hôpital ca diwaanu Kaffrine def na fa ab hôpital ca diwaanu Kédougou def na fa ab hôpital ca diwaanu Agnam na fa ab hôpital Macky Sall nee na def na fi terra moom njiitu réew mi nee na def na fi BRT jamono ji lan la ñu waxate moom njiitu réew mi nee na am na yeneen projet yoo xam ne daan na koy sumba ba tey ci journal bi Assane Samb nee na Macky Sall bëri na ay question yoo xam ne daf koo teggi ay sujet yoo xam ne bëggu cee wax ndax dafay bañ polémique am lu jëm ci wàllum premier ministre bi Macky Sall waxu ci waaye nag Macky mii nga xam ne moom la ñu gis Macky daal dafa mel ni nag dafa soppe jàppee ko ndax nag njort nañu ne ay wàllum combine politique loole Macky Sall génn na ci loxom ba set si wecci te nag li nga xam ne moo war a nekk ab taxawaayam di am mission mooy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum guerre ak wàllum yàq ak violence ak nu mu mën di bindoo yéen a kaay gi di enquête na njiitu réew mi di président Macky Sall ci atum 2022 bi daan na ci woote stabilité maanaam akuk dal journal bi nee na Macky Sall drapeau bu weex bi la jël di ko wëndeel mel ni jamono ji moom Macky jàmm la bëgg ci réew mi yéen a kaay du ñu xibaar naan ñu daal lu gudd gàtt mooy Macky Sall ab bilam la fi doon xalaat ba pare dafa tàngalaat ceeb bi yéen a kaay gi de la sa xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall ak mooñ mi ku ko gis xam ne kontaan na lool ci bilan bi nga xam ne moom la def ci ndax Macky Sall ci discours bi wax na ba nag rëgeex ci bilan bi nga xam ne def na ko ci réewum Sénégal journal bi de Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu discours à la nation boobu am na ci loo xam ne Macky Sall dafa génn gaam moo Macky dafa mel ni am na ci lenn loo xam ne ma ngi ko doon waxu nag waaye nag yëgul lu xew Macky dafa mel ni comprendre la ndax Macky dem na bay wax ne port bu Sendou léegi tey mu pare te nag port bu Sendou boobee ba ñu ko commencé liggéey ak léegi jege na juróomi at te la nga xam ne moom lañ fa def maanaam bëri wula lu toll ci dix pour cent exécution amu ca maanaam bu doon téeméera fukk ya sax jamono ji ca port bu séndu boobee maanaam liggéey guñ ko fa journal bi nee na mbir ma daal bu ñu waxante dëgg maanaam demul ci nga dikkul mbay laara est ce que Macky yëg na le xewa buukul du fulaadu loolee tamit ma ngay wax ne léegi ñu yeggale ko te nag lu mu ci xamul buukul du fulaadu kooke maanaam liggéey ya demul ci nga dikkul mbay laara dara doxu ca yéen a kaay gi di Vox xëy fekk fa Déthié na waxante dëgg Macky Sall ci boppam moo amul vision Idrissa Seck nag waxoon na fi ne vision Macky Sall jam ñaajo la yam Déthié Fall na ko déedéet vision Macky Sall maanaam génnul sax pale bi yéen a kaay gi de la Tribune xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall ci discours bi daal ci lenn la Macky Sall nekkoon maanaam ci ab bilan ak campagne ndax nag Macky Sall discours la nation bi dafa doon prox ndoolu maanaam ngir campagne Macky Sall dugg na sa campagne ba Khalifa Ababacar Sall daan nay wax ne bu ñu waxantee dëgg jamono ji Sénégal yi sonn nañ ba maara day taal yi jamono ji réewum Sénégal soréewul ak mu feebara foo laal ma ngay metti Karim Meïssa Wade moom tim daan wax ci 31 décembre bi nee na déception yaakaar bu tas askan woo xam ne jaaxle ba maara day taali yéen a kaay réew mi ko di cee ñu koy fekk fa Mamour Cissé PSD jant bi daan wax ne détournement yi am ci réew mi bu ñu ko bëggee lijjanti corps de contrôle yi dañu leen di bàyyi maanaam ku def njombe ñu saisir directement procureur wala juge d'instruction moom Mamour yoon te du exemple bu baax yéenekaay gi di Dakar Times ñëw ci contentieux bi nga xam ne moo am diggante Itok ak Senelec journal bi nee na soo muy tuulee black out mooy am ci réew mi maanaam nag lëndëm këriis musiba ma bakumba daal di dugg réewum Sénégal Baba jaw muy Itok mi xanaa nag dafa commencé politique moom Baba Diaw yéenekaay gi di Dakar Times nee na 2010 maanaam njombe gi nga xam ne moom la fi Itok bu Baba Diaw defoon ba léegi njombe gaa nga ndax qualité bu bon ci wàllum fuel moo taxoon nag machine yu Sococim yu Senelec ak nag yu ciment du Sahel daal di yàqu te machine yooyu bi mu yàqu bi ñu ko xaymaa perte ya toll na ci ñaar fukk ci ay milliards Baba Diaw itoog moomee moo xëy ñëw bëgg nag tëj kon di Senelec te buñ ko tëjee mooy arrêté production bu Senelec te loolee nag la muy jur mooy musiba ma bokk mbëggu rëy ci réew mi ndax nag loolee njiitu di Macky Sall war na koo mën a seetaana mut baana xëy jël xalimaam ne Baba Diaw itoog mi xanaa nag dafay a Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi dajalem xaalis bi nga xam ne moom la ñu nekk jamono ji nag mbir maa ngay dox good fine ndax loo ëpp deux cent quarante cinq millions yoo xam ne gars yi dajale nañ ko ñoom Khalifa Sall ak Ousmane Sonko yéen a kaay gi du l'Observateur nee na élection locale yi boo muy tuulee service public bi maanaam dina sooxee ndax nag ministre yi ak DG yi ak ñeneen ak ñeneen maanaam liggéey yi la ñu fiy bàyyi dem campagne te amuñu si benn permission yéen a kaay gi di mi ko di cee xëy dañu xibaar naan ñu sedd bi nag ma dugg si te xam ngeen ne sedd bi bu muy jigéen ñi nag nag dañuy jël seeni matukaay maanaam dem duggi marché sa cuuraay ja journal bi nag nee na cuuraay yu garaaw a garaaw jamono ji moo xew cuuraay yooye nag la jigéen ñi nag dem di jënd marché nag ngir nag di si mën a xër seen borom kër yi ndax duñ mën a génn ci sedd bi surnal bi nee na am na si cuuraay boo xam ne roofoo la tudd yéen kaay gi du sunu lamba nee na combat bi nga xam ne moo doon dox diggante Balla Gaye numéro 2 ak B52 ñu baree bari am na ñu mbetteel ci Balla Gaye 2 maanaam Balla moo xamante ni kenn kenn kenn xàmmeewut Balla Gaye numéro 2 journal bi nee na nag combat bi gën a yées